الخليل bi ñëwaat toog nii di waxtaan dafay mel ne la amoon dem moo amaat ndax sañ naa wax yonante bi ndax war innal ulama warasatul anbiya kon moo toogaat kon ni ngeen defee ni saxaaba yi def ngeen toogaat mu leen jàngalaat seen diine loolu sant la kon jigéen yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dinañ ñëwaat ci gërëm woowo ndax dafa xat te imaam ngi nii te li mu war a wax moo ëpp solo ñun li ñu war a wax responsable politique yi ñoo ngi fi toog mairie Guédiawaye yónnee na fi monsieur Simal moo ngi fay toog yooyu yëpp incha allah rabbi dinañ ci ñëwaat bu baax a baax a baax waaye li ëpp solo mooy maire commune Mbamir yónnee na fi maire délégation dinañ ci ñëwaat incha allah waaye kilifa gi moo ngi fi toog mooy Kunta Ndiassane seen Cheikh di Lamine Ndiassane moo ngi nii toog Kunta ñoo ngi lay ziyaara bu baax di la jox sa wàccuwaay. di bëgg lool ndax danga taaral bis bi sëriñ bi ne moom mii toog nee na na fi ñëpp maanaam ñi nekk ci barab bi yépp yéen ak man mii nañ ko moytu ndax nee na ah sëñ bi ne li wax duma ko wax waaye nee na day randal <laughs> xam naa si ay kal lañ <laughs> tabaarakalla ñoo na beneen bi ñoom ñoo ànd départ na mu ñëw. mooy Sidi Maxtaar mu ngi mooy Sidi Serigne Sidi Maxtaar mu nii. baayu Sidi Lamine. macha allah. moom ak Abdoulaye Diop. ak Hadj Malick Diop. mbokk Idrissa Diop. rakkam. ñoo ñoo àndoon waaye ñu xaw am retard moom mu jiitu leen. kon boog sëriñ baa ngi noonu agsi na kon tabaarakallaa kon loolu day firndeel ni rek macha allah nit yàlla yi xamante nañ bu yàgg li waa ji waxoon xat araf naa min xabli walam araakum looloo leen dal kon bu ko defee kon yéen kuy seen maam rasulullah important ci dund jullit waxuma la sax jullit waaye dund nit rek dafa am solo lool ki ñu war a waxtaanal thème bi nag maanaam buñ doon wax Aboubacar lenn lañ ci teg mooy as-Sadiq man moom mun naa wax ne buñ nee Cheikh Chérif Ibrahima dara lenn lañ ci teg mooy as-Sadiq ndax képp ko woone koo tuddee turam benn baat la la ci tegal mooy ku dëggu la benn baat te baat boobu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ba ko yéefar bi ñëwee ne ko yonent bi damaa bëgg a dugg ci lislaam waaye damay naan sàngara damay jaxasoo jigéen damay def xeetu mbon yépp yonent bi nekkoo ko bàyyil wax lu dul dëgg la ko yonent bi digal waaja ba mu demee mu dem toog tiim butéelu sàngaraam dem bay naan mu ne ha bu ma taseeg yonent bi dem mu ne ma ndax gëj nga naan sàngara ma ne koo déedéet tam naan naa su boobaa wax naa lu dul dëgg waa ji bàyyi mu dem ba jaxasoog jigéen ba sori ca lool mu jékki-jékki xelam dem ci yonent bi mu ne ko ah bis bu ma taseeg moom de mu laaj ma ba xam kañ ngaa jaxasoog jigéen bu la daganul ma ne ko waaw te boobaa def naa ko dinaa wax lu dul dëgg mu bàyyi mu mujjee xeetu mboon yépp mu bàyyi ko ndax benn baat bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa mooy baatu dëggu kon baat boobu kuñ ko askanalee jox la ko te muy lu ci moom ndax it miinante wuñ ci zahir ni xamante nañ waaye bi ma koy xam maa ngi xale bu ndaw dëkk amokat en face de boulangerie bi may xale bu ndaw laa ko xam ma xamee ko it ci kàddu gii mooy dëggu gi ne ci moom jàll dafa dogal nag du may toog lu bëri moo tax waaye xam naa ko bi bi may xale à base âge laa ko xam moom mii mu nekk ku baax nekk ku jub nekk ku maandu nekk ku ragal yàlla lu mu yëg ni dañ ko dana ko wax ci diine ji ak ci réew mi dana ko wax te it amu ci arrière passé di wax ndax nit ñi di ko ak yooyu mu bokkul ci ci ay mbiram moom pédagogie moom bokku ci kon kooku bu ñu ko indilee mu toog fii war ñoo waxtaanal ci thème bu am solo mooy àqi dëkkandoo ah loolu nag kon da ngeen di préparé ubbi seen yi te déglu ko ndax xam lépp lu mu leen di wax lu mu dund leen di wax ba noppi ndax lislaam balaa neex nga dund ko moom da leen di dund ataamuroon naasa bil birri wa tansawna anfusahum moom bokk ci moom kon bu ko defee mu ngi guddi ñu tijjil ko jox ko muy waxtaanee mbokk yi tey waa kër ci dëkk ak dëkkandoo imaam wa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barakallah euh, kon ginnaaw nuyub lislaam boobu nga xamante ne mooy nuyoo waa aljanna taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam maanaam bis bi ñuy dugg aljanna salaam salaam rek la ñuy wax illa qiilan salaaman salaama kon jàmm jooju yàlla na ko yàlla tuur ci quartier bi yàlla tuur ko ci senegal yàlla tuur ko ci gox julit ñëpp euh, Chérif Cheikh Ibrahim Haydara ñu ngi lay wax asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi lay dalal fii ci cité Saba ñi nga àndal a Cheikh alxaaj Malick Diop axu Idrissa Diop euh, cheikh bi ñu lay wax ahlan wa sahlan bikum a cheikh Souleymane Samba ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamu aleykum di la dalal fii ardi cité Saba kon balaa loolu aha mu ne Serigne siidi Makhtar Kunta moom mi waxoon ni nanu jàpp sunuy poos ndaxte dafay ah waaw kon baax <laughs> donc kon kon euh, ñu ngi koy dalal moom it di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum euh, inchaa allahu taala balaa ñuy dugg ci thème bi ak conférence bi dañuy daal di jox chef de quartier mu dalal ay ganam daal di tatagal su ko defee su paree delloo ma kàddu bi ma introduire tuuti kàddu imam Sakho moom laa fi remplacé. rahmatullah suñu imam. et eh, dafa yemoon ne temps bi dafa xaw a xat waaye daal defal naa leen jukkal yéen jigéen Cité Saba yan na borom bi fay leen yiw Ako Ndiaye nag mes félicitations madame Ako ndax site Saba am na loo fi def te mu ngi fi sax nag ñu ngi koy doxal bu baax a baax ñu ngi leen ciy gërëm di leen di sant. di ñaan yal na borom bi yokk leen yokkute bii nag am na ndax su ngeen wootee ndaw dawra bi nit du ci moom daa heureusement que bi ngeen wootee conférence te ki ngeen wooy nag nekk nag koo xam ne macha allah yàkkamti nañ ko kon nag li cité saba mooy thème bi di ñuy dunduñ ci cité saba bi mooy thème bi dëkkandoo am na àq te dëkkandoo eh lu am solo la ndax lu xew bala ngay gis kenn ñoom ngay gis njëkk a gis kon nag jara bàyyi xel la kon imam pour bañ wa yal na borom bi may la ñu am noppi dégg. Euh, jërëjëf Baye Modou yal yàlla fay yiw yàlla yàggal la suñu kanam yàlla fay la ay jéego yi ngay dox def ko yiw yu bari wax dëgg yàlla biñ la amee ba tey daal suñu xel dal na euh, su ko defee nag man ma remplacer fi al imam Cheikh Ibrahim Sakho euh, donc fii ma toog moo fi waroon toog mais yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne moom day dogal lu ko neex dafa dogal ci ay dogalam ñu convoqué ko correction bac fële ca Kaolack donc bag yi jeex na bañ def deuxième tour waaye yàlla dogalaat magam ba fay sëy boroom këram wàññeeku tey mooy sarax bi su ko defee looloo ko gàllankoor shérif ba gisuloo ko ci jotaay bi waaye bi ma ko woowee ci suba jox na ma ay kàddu yoo xamante ne dafa ne nang ma ko àggeel kàddu yooyu kàddu cant la ak ngërëm ak kàddu kontaan lu askane ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi sallam bokk ci ak njabootam ñëw teew ci goxam loolu bég na ci lool kontaan na ci lool bég na ci lool fu bég yamul kontaan na lool fu kontaan yamul waaye kàddu yam ma joxoon ne naa ko àggee man lottu naa ci génne ko kon imam mi ngi lay nuyu yàgg ñi nga àndal mi ngi lay dalal yàgg ñi la àndal mi ngi leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ardi cité Saba su ko defee dañuy daal di jox Chérif mu dugg ci thème bi nga xamante ne ku nekk soxla na ko dafa mel ni ku mar lool xiif lool ñu ne ko ceeb a ngi nii ndox a ngi nii kon moom indi na ceeb bu doy indi na ndox mu doy fas yéenu ñu leel lan la ñuy leelee xam-xam ci ban tem aljaar dëkkandoo jigéen ja nga xamoon moo fi dàqoon woor dàq fee julli dàq fee jàng alquraanul karim dàq fee lor dëkkandoom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu faatoo saxaaba yi wax ko loolu dafa ne leen fa fi naar hiya fi naar mi ngi safara lan moo tax loolu lor sa dëkkandoo xolal jaamu yàlla bay bëgg dee tudd yàlla bay bëgg a dee saraxe bay bëgg dee fan mooy sa mujjuwaay mooy safara lu la ko jox lor sa dëkkandoo kon Chérif ilayka alkalima fa marhaban bikum tafaddal mashkura bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi allama alinsana ma lam yaalam wa xalaqa fa sawaa wa jacala minhu zawjayni zakara wa lunsa inna sa'yakum la shatta wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi moo di nuyu lislaam te mooy bi imam wax léegi délégué de quartier jaar ji moo di asalaamualeykum muy baat boo xam ne làmb na àddina làmb na laaxira te lii ñu fas yéene waxtaane baat booboo ci jiitu su fekkoon ne baat boobu rekk doxal nañ ko ci suñu biir respecté baat bi xool li muy fi firi jeexitalam ñu incarné ko incha allahu taala konoon pénc mi dana rafet biir kër yi rafet mbedd mi rafet àll bi rafet bureau yi rafet fépp rafet waaye malheureusement baat bi baat bu riche la waaye ñun ñi koy wax nag xaw ma ñoo riichut wala ñoo am feebaru xol ndax baat la boo xam ne waruloon génn ba noppi safaan di am loolu rek doy na bi Haj Malik buñ ko dugaloon ci biir thème bi rek mënta jeex ndax baat la boo xam ne yàlla ñu ko sant damay def introduction baat la boo xam ne yàlla ñu ko sant amu fi woon xeet yu njëkk yi amuñ ko woon yonent bi ñëw yàlla gàtt nga ñu dugg àjjana ëllëg muy baat boo xam ne ca àjjana la amee yàlla yéene ñu yiw bëggal ñu teraanga bëggal ñu jàmm ak salaam jël ko jox ko ki gën ci mbindeef yi muy sallallahu alayhi wa ne ko jox ko sa xeet wi ñu koy gàtt nga wante ci seen biir ba ëllëg ma dugal leen fa mu amee piir moo di àjjana yal nañu ko yàlla defal boo demee ci biir jàkka ja ilimaan loolu lay wax nga ñëw ci biir néeg bi yow jigéen miy julli yow kese loolu ngay wax waaw kon lu tax jàmm mënul am lu tax jàmm mënul am jàmm du añ rek ba suur walla reer ba suur wala ndékki ba suur bari na ko am añ am reer am ndékki te amul jàmm kon baat boobu nañ fexe ñu appliquer ko application bi moo des léegi nag daanaka nuyoo amatul salaamaaleykum salaamaaleykum du nuyoo waaye léegi sax boobu bàyyi nañ ko Jóob Njaay Fay Kunta ay dara loolu la ñuy nuyoo moo tax jàmm jafe asalaamualeykum mooy nuyu salaamaaleykum mooy yal na nga dee naafeq yi buñ mosaan ñëw ci yonent bi buñ koy nuyu dañ koy bërxal duñu wax asalaamaaleykum dañ nga am salaamaaleykum mooy yal na nga dee ba sayyidatuna Aïcha moo ci bàyyi xel na ko yow ki yàlla yónni déglul li baat bi ñu lay wax mu jigéen nag yàlla ne jël baat bi ne ko wàtt ci alxuraan ne ko buñ dëglul buñ lay nuyu duñ la wax asalaamaaleykum dañ lay bërxal kon ñun nañ jël baat boobu ñu respecté ko ci suñu biir yéene wante ko sëriñ Mbay Abdul Aziz day wax ni bari na ko naan asalaamaaleykum rawati ci jàkka ji ilimaan xam na li may wax danga naan asalaamaaleykum geesu yem ci nit du mooyuwaat ndax bëggoo ko woon a gis kon loolu lu ci jàkka ja wala léegi léeg sax gis kuy nuyoo ba yem ci nit tëb ko yooyu yëpp yooyu yëpp lu ñu war a wax la kon daal imaam mënuñu leen a fay man seen jaam la jaam nag bu ñëwee ci ay sangam li Cheikh El Hadj Abdou daan wax ne jaam bu ñëwee ci ay sangam sang ya baax lool teg ko ca kaw jox ko rajo ne ko waxal mu ne bu mu tax mukk mu fàtte ne jàmm la la ko waroon mooy taxaw ca buntu tant ba kuy yónni yónni ko kuy sant sant ko su noppee taxaw xaar luñ koy santaat buñ ko santaatul dara mu yolleeku dem ñibbi kon cité ba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ma xaaraale liste bi ñu indil ma ko ndax comme dëkkuma fi gan laa fi alaaji ma silla mu baax mii moo koy wax wolof nag day wax ne ku ku lim juum déedéet ku lim doo matal waaye tàgge boo gis am na jàppal diw mbir bu melee nii faw am nañu ñu ca jàpp ña ca jàpp war nañ leen wax jërëjëf mbir bu melee nii ñi ñëw toog doonte sax da ñëw toog te joxe dara yaa taalal mbir mi ndax tey bu ñëpp joxe woon te toog yaakaar naa kenn du fi wax bu ñëpp joxe woon ku ne cent mille francs te toog ca kër ga yaakaar naa tànt bi du dox waaye kon ki bàyyi itim bàyyi léppam donte joxewul dara mu sañ sa ba jekk ñëw toog kooku kenn mënatu ko fay xanaa yàlla mi mën a fay rek moo ko mën a fay moo tax yàlla wax ni istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum lima yuhyikum na ngeen wuy ji woote yàlla su fekkee woo nañ leen ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg te gërëm te dara jiituwu ci lii nag li délégué de wax léegi joboot bu woote woon it leneen nga dem jëloo la soo mënul dem walla bëggoo dem sa xol du ca neex waaye joboot nag bu wootee la nga xam ne moom nga bëggoon yow ah kon alhamdulillah rek la wax mm-hmm. kon délégué de ñu ngi lay sant di la gërëm damay def nag benn introduction di leen ñaan buñ jullee timis ba noppi comme tey la samedi man nag tey gën naa kontaan ci yéen xam nga lu tax xam nga lu ma impressionné c'est la première fois ma ñëw ci conférence avant timis fekk ñëpp daje mu ngi door a am moo tax sànq biñ jullee timis ba noppi laa woote astafurlah bi ñu julee tàkkusaan ba pare waaw ñu may leen ñu ñu dal képp ku ma sa dégg ci télévision bi wala ci réseaux sociaux yi ma naan Sidi Kunta mooy bii toog xàmmee leen ko bu baax a baax a baax yàlla dogal na benn xarit laa am ci kaw suuf mooy moom mii toog keneen koo gis ma àndal wëllëre la walla soppe waaye xarit moom ci dundu nit benn rek lay doon su fekkee Sénégal xam nañ luy xarit xarit warul ñaar nekk ñaar léeg-léeg nga dégg ko naan diw sama xarit la diw sama xarit la am na koo ciy nax ci charia laa wax ci charia xarit benn rek lay doon moo tax yàlla 124 mille yonent la yónni waaye kenn la ci tànn ne mooy xaritam dafa ne wattaxaza allahu ibrahima xalilan Chérif Ba moo tax ku yebu rek li li li oustaz wax léegi ci imam oustaz ma dimbale la maa ngi koy wax Hadj Malick ma ne ko kooku boobu ku ko wax Sénégal rek war nga ma jox fay droit d'auteur bi bi sëriñ bi wax léegi boobu maa ko génnee moo tax ku koy wax en général doo ko mën a wax man wax yi ma moom yëpp ku ko génnee rek dinaa joxañ ne la bii sama bos la xam nga ku ko daan wax oustaz Maska ca Gàmbi mook imam Mbay Ka bi nekkoon fii ci Dakar ñoo bokk benn baay sëriñ Modou Ka moo leen jur sëriñ Modou maam Maska moo ko jur maam Maska moo magoon sëriñ Touba moo magoon Alaaji Malick moo magoon maam Abdoulaye Niass te moo leen fi mujj dund na san vingt ans téeméeri ñaar fukk maam Maska dund na ko dëkk bañ ko rob def naa fa juróom-ñaari at muy Medina Baye Mass 78 fa la ma fekk jàng naa fa Medina Baye Mass boobu jàngee naa fa def naa fa 7 ans 77 laa fa dem ba 81 ma dem Banjul doon jàngee école bu ñuy wax Crab Island Secondary Technical School foofu def naa fa ñeenti at. am sama bac en anglais door a dellusiwaat Tiwaawan xam naa ki doon laaj démb biographie <laughs> waaye yooyu dafa ëpp di ko wax jaru ko oustaz Maska waaw Ablaay ba nag yóbbante bi jot naa ci soxna Rugi yetu dinaa ci ñëw moom Ablaay ba biñ xadaraa démb bi pare daf ma ne ah, soxna Rugi nee na dafa am ko soxla sa biographie ma ne ko naa def bi nit du wax fii laa jaar fii laa jaar fii laa jaar da ngay naatalal sa bopp nañ bàyyi rek ker bu ko nit xamee ba wax ko rek ah muy yéene waaye nag fii laa jaar fii laa jaar fii laa jaar loolu loolu moom li sëñ kër Si doon wax rek baa doolooy def luñ ko defal mu yooree lex ne daa ko yeyoo kon oustaz Maska boobu nag moo daan wax ni dama ko xam bu baax nag mook mbay ka ñoo bokk benn baay moo daan wax ne yéen waa Banjul moo tax mu ngi dëkkoon quartier bu ñuy wax jéem Sénégal ca Banjul fa la dëkkoon jëm senegal dangay romb Lancaster jaar 44 Haddington Street romb Box Bar Stadium fa la jumaa ju mag ji nekk léegi boobu stade de football la woon tuddoon Box Bar Stadium nga door a ñëw nag jëm senegal fa la nekkoon moo daan jiite foofu moo daan wax ne yéen waa Banjul bu ngeen yeboo di ma neexal ndax may seen ilimaan mu ne ñett yi ngeen bëgg gën a bëgg te muy defar dundu nit maa ko yeeyoo mooy takk sëy tudd doom jullee néew mu ne sëy buñ fi indi ci jàkk ji te juboo ak seeni borom xutba bi kenn du ko wax ci kaw ci suuf nga koy wax dama naan yàlla lu ci judd yàlla nay rek daal di ne faatiha mu ne faatiha ba ca yàlla di nangu kenn xamu ko mu ne doom juñ ma fi indi li mbokkam danaa ko tudd dama naan damay sëgg ci nopp ndeyjoor bi nag ne yàlla kii de waaye baayam woyu la yaayam bàndi la bu màggee yàlla na leen raw daal di ne faatiya mu ne ku ciy mu ne beneen bi ci des mooy jullee néew ku fi indi néew bu ma jubawul ak ay mbokkam allahu akbar ji moom comme dinañ ko wax ci kaw dinaa ko wax ba ñëpp dégg ko mu ne waaye la cay tege dara du baax dama naan yàlla bu yegg si rek sa yet wi na dal ah loo ci mën ci suuf lañ koy wax waaw mu ne kon ilimaan yi dañ war di jubóog ñoom alaaji bu saaxo moo daan wax ne koo gis jox ko orma mu ne ndax xamoo ci yan loxo ngay mujj mu ne man Ibou dey bu ma xamoon ki may jullee ëllëg saa yu ma xëyee jox ko junni ne ko del yërëmtalu ndax yërëmtalu rek la ci yàlla bëgg mu ne su ma xamoon ki may sang ëllëg it saa yu ma xëyee dinaa ko jox junni ne ko ragg ba set sang ba na rafet mu ne waaye xamoo ci yan loxo ngay mujj moo tax thème bii ngeen tànn tem gënu ko rëy dama sa bu ma sañoon senegal yëpp di ko tànn weer wu jot ndax bi léegi xamuñu àqi dëkkaale xamuñu ko xamuñu ko kon nag buñ julli jee timis ba ñëw ngeen may ma ma nuyu kilifa yiñ ma fi jox ci list dugal nag xaaju ñu door a dugg ci waxtaan wi kenn bañ a yàkkamti ndax mbiru yàlla la mbiru yàlla ku yàkkamti bokkoo te yàlla mën nañ ko muñal mën nañu muñal àddina waaye li ci ëpp mënuñoo muñal yàlla dara kon nag ñu jéem muñal yàlla tuuti ndax àddina dafay jeex de te ku gis xool nii àddina bi di déroulé nga xam ne jeex na ba pare barki démb rek sama benn wëllëre waxtaan nañ téléphone bi raccroché matu 30 minutes ñu woo ma ne ma faatu na te fi toog di julli lañ ko fekk julli na ti fajar ci jàkk ji julli tisbaar toog yor kurusam di wer waa ji ne ma ñëw ubbi bunt bi gis ko mu toog rek ma ne xëy na day wér du pareegul tisbaar tàkkusaan ba timis ma ne lii jaaduwut saa waay daawul wér de nii ñëw laal ko rek mën a këndëng moo tax ku yebu rek bàyyi xel sa bopp ku yebu bàyyi xel sa bopp te rafetal dëkkin wi ñu rafetal ko bu baax ñu rafetal ko bu baax àddina dafay jeex àddina dafay jeex te luy jeex kenn du ko jëndeek lu dul jeex àllaaxira du jeex mukk te àddina dafay jeex ana suñuy maam dem nañ ana suñuy sëriñ dem nañ ana suñuy baay dem nañ ñun ñoo fi des la leen yóbbu duñu fi bàyyi bari na tey ku ñuy tudd jikko ja moo doy waar waaye moom nit ku baax la kon ki ne léegi sax dinaa ne danaa bàyyi di wax siidi Maxtaar ndax siidi Maxtaar yi dañ bari ñoom dof lañ kuñ jot ne Sidi Maxtaar léegi nag boo bëggee xam bii mooy di Kiné yaayam di Kiné Senghor ma Lamine Senghor ca Thiès moo ko jur cité Lamine Senghor bi ngay dégg cité ma Lamine moo jur yaayam muy nit ku baax tey ma indil leen ko nag waaye bu ngeen yeboo rek def très attention tey ñaari konte konta fi nekk lu réer ci tant bi nag na ngeen leen ko laaj tabaarakallaahu kon imaam ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu imaam saaxo bi nga fi wuutu moom it ñoo ànd ñëw muy nit bu baax kon ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax eh, ki ci topp dimbali ma abbe Hélène Diagne waaw eh? par waa mbaaw waaw kañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu gis nga communauté chrétienne bi fi nekk démb rek ci xadara bi maa ngi koy wax te xaw ma woon ne danaa leen fi fekk démb ci xadara bi maa ngi koy wax ma ne nañ def très attention ñun jullit ñi wallahi démb rek ku seetaan Chérif Dabakh TV bi di nga ko gis ma ne leen les communauté chrétien bi fi nekk yar nañu seen njaboot ñun jullit ñi rek ñun ñoo yarut suñu njaboot ah ngeen baal ma àq nag moo am boo waxee chrétiens yi lu ñuy wax ñoom da dañ yaru te pourtant ñun ñoo leen waroon gën a yaru dëgg walla du dëgg démb ci xadaratul jumaa bi maa ngi koy wax ma ne leen baar bu la neex taxawal ci Ndakaaru man maa leen jox boobu consigne ndax loo digg ma wax rek expérimenté naa ko ba xamu ko ndax man du ma wax lu lu ma xamul lu ma xamul rek damay noppi wala ma laajte ko baar bu la neex taxawal ci Dakar ku tërëf génn nga ne ko noo tudd man maa la wax rek li may wax càmbar leen ko ngeen xool baar bu la neex ci ndakaaru ak li ko wër taxawal ci buntu baar ba ku tërëf génn nga ne ko noo tudd Moustapha doo ci dégg mukk Jean walla Paul jamais ñun sàngara si ñun dong nga koy naan ñun jullit ñi li bon yëpp ñun ñoo koy def non non nañ ko wax ci pénc mi mu jag suñ ko waxul du jag gis nga góom boo demee ci docteur da nga koy won fi góom bi nekk mu gratter ko def ci alcool takkal la ko ñetti fan mu wér nga doxi sa soxla waaye bu tànk bi di metti nga ñëw ne ko loos weey métti doo doo wér ba faw li Alaaji Abdou daan wax nañ ko teg ci digg penc mi kenn ku ne wax ci wàllam ñu seet nuñ koy saafara waaye mbon mbon gi ñuy jooy ci senegaal yépp ñun jullit ñi ñoo koy def walla du dëgg ngeen baal ma ñiy gàddu saak di jaay seen bopp tey jigéen koo ci tase laaj ko noo tudd Jeannette walla Marème nga déggu ko ci barewut ndem am na kon yaa problème te problème bi ñun la bu ñu nax suñ bopp nañ yëg ne ñoo defaroo koogud waaye lii nag ci liy defar la bokk may remercier nag bu baax a baax a baax soxna Rugiyetu Sow ndax yàlla moo wax ne waatul buyuta min abwaabiha imaam xam na li may wax yàlla ne mooy dem ci dëkk na nga jaar ca bunt ba fii ñu toog nag moo fi sañee toog bay wax am fi kàddu mu ngi jaare ci soxna Rugiyatu Sow bi toog borom këram a ngi noonu dend ak yow muy sëñ Jibi Si ak doomam si ñoom laa doon defal conférence ci koor gi ca Sodida fa lañ ma gisee bi lii am tey kon soxna Rugiyatu jërëjëf suñ fi am fukki tiyaaba moom ñaar fukk lay am te du yàq ci suñ fukk yi dara ndax man sanna sunnatan xasana la yonent bi wax ku sos lu rafet mu ne luñ ca def dinga am lu toll ni ña def ñépp te du yàq ci seen yiwu dara kon yéen ñi nga xam ne nag yéen a ko déggalit laaj ko fu ma dëkk ak nu ma tudd soxoreewu leen ko ba ma ñëw toog ci seen biir maa ngi leen di sant yéen itam ndax kenn ku ne am na ku ko gënal di leen joxit yóbbante ak nuyoo tafsir Abdourahmane gay ak Chérif Mamine Haydara jéemoon naa leen bëgg lonk ko sax waaye tafsir dafa demoon Paris bay door a ñibbisi dem Foundiougne mook Chérif Mamine seen Foundiougne gën a xumb na lool nee na daal dañoo conférence ba muy waaj a jeex ñu yëg ne bag bi day wàcc ñuy dugal seen oto yi ca bag ba mu dem ñu yóbbu oto ya mu dem ca tefes ga di leen xaar ñu conférence ba pare gannaaw vingt deux heures jël gaal neena na naka lañ jël gaal ba dugg rek taw ba ngelaw la commencé mu ne shérif Maamin naan kan la ñuy bàttalee ndax xam naa ne ca mag ña lañ jëm mu ne xale yi wëy xale yiy wëy lu nekk ñu ngi koy jàng tafsir ne leen du tax mu sotti de jàng leen fii moo gën <laughs> jàngi leen fay moo gën a wóor waaye nee na daal ñoom ñëpp a tooy xepp gaal ga naan kurum kurum kurum mënuñoo dëpp mënuñoo dem waaye nee na bañ yegsee ma jàngal ko laaye ja yàlla xam nga lu ne wax na ko fa ida gasiyahum mawjun fi lbahri daawu llaha muxlisina fa lamma najaahum ila albarri ida hum mushrikuuna yàlla ne su tempête amee ci biir géej mu ne ñëpp di woo yàlla ay waay laa ilaaha illallah ay subhanallah yaa salaam mu ne waay suñ muccee ba dem ca tefes ga ku ne naan sama sëriña dégg nga ko de yàlla fu ne jàpp nañu fa fu ne kenn mënu ko rëcc mu ne waaye buñ demee ba ci tefes ga bay mucc am mu ne ku ne di rëy gémmiñ nag ah sama sëriña fa jaar te ba tiit amee kan ñëpp laay laay la laa rek waaye Chérif Maamine daal mooy ca génn moom moom daal dafa ne kan lañuy ñuy bàttalee ne ko fii kañ ko ñuy bàttalee amu fi ñun ñëpp a jëm ca mag ña rek <laughs> ma ne ko tafsir bu leen defati loolu ci àddina mu ne ma baayam nee na ko fukki téeméeri bu ko defati ci mag mu ne benn benn dootuma ko defi mag moo ko gën mu ne te dootuñ ko def day na sëkk <laughs> ma ko ba ngeen ba ngeen pare kañ mënoon ngeen jaar fu Foundiougne ak Sokone benn la rek continuer ñëw Kaolack waaye ñàkk xam ah. kan Fary Makalu waaw kañ Fary Makalu anamu Fary anamu Fary yàlla nga far ak yàlla. sëriñ Mansour borom daara yi moo ñu jàngaloon loolu fari màkkaloo yàlla na nga far ak yàlla tey dem màkka lu bare bare bare bari ndax lii moo ko organisé ci loxoom la jaar muy ko baax ndax nit bu ñàkkul iñaan te maa ngi ñaan nañ ko seetaan waxtaanu àjjuma bi démb pratiquement ci loolu laa doon wax soxor gi ci suñ biir te ñu ni neen la ñuy soxorante rek nañ ko wattandiku te soxor baaxul nit ki mënoo ko xañ li mu war a am fi mu war a yeggit mënoo ko teqatal ba du fa yegg Serigne Cheikh Tidiane si daf daan wax ni yàlla bu rëddee nga far mu ne du la wax dara mu ne mu rëddaat nga far mu ne du la wax dara mu ne bu rëddaatee ñetti yoon nga bëgg koo far nag mu far la bàyyi fi rëddam ndax yàlla lu ko neex loolooy am kon alxaaji Malick daf ma wax ni naa waxtaan bu desee tuuti ma jox ko mu def senteesu waxtaan bi jox sëñ Sidi Maxtaar mu ñaan ci ndigalu imam ak délégué de quartier ma ne ko li ma wax nag alxurru xurrun maalam yatakallam mu ne ma ñaan naa la ko rek defal noonu kon ñu may ko ko ndax soppe la waaye bu boobaa it ñu déglu ko li tax ma indi ko xam naa ko te mbir mi ñun ñëpp ko bokk kenn ku nekk ak méthode bi muy waxee ak ni muy waxee ak ña koy déglu kon jigéen ñi maa ngi leen di sant di leen gëm ak jaaru mooy dëkkale dëkkaale ngeen baal ma nag dinaa def tuuti rectification nit ñi wolof ba tey xàmmeeguñ dëkkandoo ak dëkkaale du benn nit ñi nag àqi dëkkandoo la ñuy bind waaye xam naa liñ ci jublu àqi dëkkandoo dëkkandoo kenn la mooy suñ boroom subhanahu wa taala dëkkaale nag mooy bari mooy yii am mooy bi ngeen tànn wolof nag moo jafe parce que man saalum saalum la ñu firil ma alxuraan ci wolof ci làkku saalum saalum moo tax wolof li ma ci réer bariwul góor gu baax gu ñuy wax alaaji saaxo nekkoon ca sookoon moo ma defal tafsirul xuraan baqara benaasi doon frère ci alaaji ibrahima saaxo ndax ku ne xam na ne am na lu ñu ma dénk ci commune bi waaye dafa am lu ko jiitu mooy daara ja te daara jooju keppaaru ki ñu jaar mooy sa soppe mooy sa lépp muy sa alxaaj Abdou Aziz Dabakh yàlla dimbali ma may ànd ak doomam Sidi Ahmed si kon bu ma ñëwee fekk la nga toog ci kaw ak ni nga mel ak seen alxaaj Abdou Aziz Dabakh ak njabootam te bu ma ànd ak ñoom fu ñu mën a dem bu ñu toogee ci kaw ci suuf laay toog du xorma du teggin may toog doog yow si kaw te du xor ma du teggin nga toog may yëkkati kàddu waaye dafa fekk ne bu ñu la yónnee rek te dañ ne nit ku nekk ka la yónnee darajay kooku ngay représenté muy monsieur le maire Abdoulaye Pouy boolema ak délégation chef de cabinet Ndiaye Sow ak jigéenam Ndeye Khady Ndiaye bu yor ay financement am ak Bounama Gueye mën naa ne sama bàjjan la ndax Tiwaawan la dëkk waaye di la nuyu Chérif Ibrahim di la jox sa wàccuwaay di la ziar di nuyu sama xarit sama soppe yàlla boole ñu si ëttu sa Cheikh Abdou Aziz Dabakh sa Ndakaaru loolu ëpp na fukki at ak juróom daayira ba fa nekk koon gu jot di def conférence mag moom mii ñoo ko yoroon si ndigalu maam Ousmane si ak soxna Yakoor du Fall mu di si liggéey liggéey bu am solo di xaj Malick jóob mii toog yàlla dogal bi ñu gëjee gisee yàgg na fi ñu yàlla dajalawaat tey jii te boobu bu léegi maa ngi koy xalaat ndax jamono ni mu tëddee la ku ne da ngay daw am foo jaar muy xaaj Malick Diop mii Chérif Ibrahima ma di la seddal nit ku baax la waxuma adresse sax bi nga ko jox si Idrissa sama soppi sama xarit di sama mag waaye moom jëmm ji rek nit ku tedd la te baax la mbaax nag ki baax mooy ki xam lu baax di ko wax te mooy yow ndax li nga feeñal léegi sa diggante ak moom waaye di nuyu suñu soppe yi wax naa léegi ne al ulama warasatul anbiya te mënu leen si génn yéen ñii di Sëriñ Sidi Maxtaar bii toog ak rak doomam jëlal mu toogal di Sidi Munta ñuy waxtaan léegi xaritam wëllëreem soppeem di sama xarit di sama lépp di Sëriñ Mansour Sarr mm. ñu leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di yëkk ci ay kàddu nag di kàddu kilifa di nuyu mbokk yi fi daje yépp nag di jiital nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy bunt bi ndax wax nañ ko léegi ne wa aatul buyuta min abwaabiha mooy al akbar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu délégué de bi nga xam ne moom moo fi wuutu monsieur le maire Abdoulaye Ibrahim jigéen ñu tedd ngi nii jigéen ñu baax a ngi nii kaddu yi may yëkkati du sama kaddu kaddu monsieur le maire la di wax ne jigéen ñu am taxawaay lañu jigéen ñu bëgg seen bopp waaye jigéen ñu bëgg seen quartier waaye te nekk jigéen ñu topp seen diggalu boroomi kër monsieur le maire ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di leen gërëm ndax yiw wu toll nii ku la si boole cër bu ko yàlla mën a jox te amul yiw wii amul dara kon cër bi ngeen ko boole ba boole ko ci yiw bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di jël cant gi nag teg ko ci soxna Bintu Guèye jaay Bintu mbay Guèye mu di leen ko jotal si ndigalam di leen sant bu baax a baax am benn yóbbante bu mu wax bu dul woon loolu ma jël kàddu gi daf fi jaar fii lëndëm mu woo chef de cabinet na ko li ma jaaxal jënd naa ay lampadaire ci commune bi cinquante laa fi fekkoon daaw jéeg ma jënd soixante dix daaw ma jënd deux cent ren ma jënd six te Cité Saba ba léegi leeragul lu tax mu ne ko dañuy liggéey moom mii toog te yegg guñu fa mu wax leen ne nee na dëkk bi ni ñuy montee làmp yi ngeen di ko gis seen quartier bi dina fi agsi yóbbante la nag te dañ ne nit buñ la yóbbante waxal lañ la yónni loolu moo tax ma yëkkati kàddu gi di la wax na nag ñun lu dul diina ñoruñu ndax keppaar gi ñu yaroo waaye nag wa ma shahid naa illa bi ma allim naa lépp lu ko yàlla dénk dina ko def taabuda lillaahi si diina ji te séentuwu si dara wutu si dara lu dul yàllay kese Chérif ma di la seedeel loolu di leen baalu xaq ndaxte kàddu ba gën te xadis ba wax ko mooy kàdd bu gàtt te am njariñ nee na moom yéen ko fi wuutu ngeen ñaanal ko yàlla yan bi yàlla na oyof si kawam yàlla nag mooy tànn xulillaahi ko mulki tuuti mun ko man tasha waxtu bu jeexee rek keneen ku war a ñëw dana ñëw waaye ngeen ñaanal ko yàlla si liggéeyam bi mu àggale ko ak sagoom yàlla dimbali ko population bi ko yàlla dénk teg ko si loosam te ëllëg kullukum raain wa kullukum masul an raiyatihi yàlla dina ko laaj noo nekkoon ak ñoom ngeen ñaan ko si yàlla ba buñ ko laajee ëllëg mu am bu dul cent pour cent mu am cinquante pour cent Chérif maa ngi lay jéggalu di la baalu xaq di leen ñaanal yàlla bu baax a baax si seen taxawaay si diina ji seen taxawaay si tarixa bi seen taxawaay si mbokk gi suñu mbokki paroisse yi fi toog dinaa ko seede li nga wax monsieur le maire lu fa xew mën lay yónni waaye nit ñu baaxee noonu mosuma leen a gis commune bi li ko tàmmalee sa curé bu ba si ki gën a féete suuf am na lu fi mos a xew mu ne ma demal si yar nga laaj ba xam ñoo ko bind bi ma demee seeti curé bi dana ma binduma ko waaye li ma la mën a wax mooy dinaa ko déclaration la man defuma ko ay intoxication le si yar ak teggin lu ñu leen ñaanal doyul suñu mbokki catholique yi yàlla yàlla guddal seeni i fan Chérif maa ngi lay jéggal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu yeewi leen ñu dem abbé abbé moom sama abbé la yaakaar naa ñëpp xam nañ ko abbé Jacques moom bokk nañ ay conférence maag moom lu bëree bëree bëri waaw ngeen Jean Pierre nga nuyul ma ko bu baax waaw tabaarakallah kon ñu bàyyi leen ngeen daw rek tabaarakallah jërëjëf xaaji Idrissa jërëjëf jërëjëf Ndoye kontaan nañ waaw kañ saw dañ ma indil waaw kañ saw nuyu leen nu monsieur le maire dañ ma indil benn këyit hmm. ñu ne délégation nu madame le ministre de la femme et de la famille ki ko fi représenté ki mu yónni gannaaw Ndeye Saly Diop am na ko mu fi yónnee moom lañ ministre bi lañ marraine bés bi ki mu yónni nag mooy Soxna Ndoye su Ndoye astaghfirullah ngeen baal ma moom la ñuy jox xëy na bu suñu kilifa yi toogee sax war ñu wax waaye olof Ndiaye daf ni ku la defal lu baax bu bis ñëwee boo ko waxul buy lim say noon na ko ci boole conférence bi biñ ko sosee ñun ñëpp ñoo ko bokk def ñu tuddee ko ñu def ko sous le patronage de madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille du genre lu waral loolu Chérif 2011 la ndey Saly Diop fii ci cité bi monteel ñu comité dugal ñu APR ñuy jàppale la président Macky Sall ba yàlla def mu am ndam 2011 ba 2018 la ko mag Sall doo ko nommé yàgg na waaye ba mu ko nomee ñu jël suñu carte dem def félicité ji ko ba muy joxe ay financement ci pikin ñun la njëkk a jox fii ci cité bi ñu ngi ciy liggéey ñun jigéen ñi loolu am na wala amul du ci yëngu. di ci jàppalante suukaru koor responsable yi bari nañu mais ndey Saly Diop jën moo fi njëkk dugal suukaru koor fii ci cité bi teraanga ju bari am na wala amul ñu séddale ko ñëpp am tabaarkàlla macha allah kon bis bu mel nii bu amee ñu jël ko teg ko ci kaw turam man ndey Fall Ama présente représenté ko fi maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm délégation bii mu yónnee muy Adja Sukay di ko xamal ni ko ñun toujours ci ginnaawam di ko jàppale suba ak ngoon fu mu ñu woo dinañ ko wuyu jërë ngeen jëf. gis nga bu ma koy wax dañuy foog ne kii sax dof bii sax kunte mii am na loolu ñuy wax WhatsApp moom lay tiitaroo ci sama kaw. yàlla xam na ko man WhatsApp xaw ma sax fu mu xewee. yàlla xam na ko man téléphone bi ñuy wuyoo rek laa am allo salaamaaleykum te mën naa toog ñetti weer duma ko taal. xam nga kon man bokk ma man dama déconnecté bu yàgg kon ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax Haj Malick loolu am sëñ Sidi nee na ma man dof laa mu ne man aw ma workshop ma ne ko ah loolu la yàlla dogal kon mbokk yi madame la ministre ñu delloo ko nuyoo bu baax euh, madame la ministre Sali Diop Dieng ak yow mi mu yónni ndax nit kenn du ko xeebal bésam kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal jàngoroom ki am bés nag tuddee la ko nga jël sa teraanga yóbbu fa jël sa ndaw yebal fa am ah, mënoo def lopp loolu waaye yow it jotal nga kàddu bi bu baax a baax a baax noonu la boo amee ku mënul wax am ku la waxal rek waxal na la yal yàlla defar yëpp kon mbokk yi waxtaan wi dañ koy xaaj ñetti xaaj dëkkaale ñett rek la yéen a ngi dégg wala dégguleen ñetti dëkkaale rekk a am bokkul nag ak bi alaaji Abdul Aziz daan wax boobu dinaa ci ñëw àqu dëkkaale ñett la ki nga bokkal bokk boobu la sëñ Abdou daan wax ki nga bokkal koñ walla gox ak ki nga bokkal réew mi ki nga bokkal bokk bokk ak moom gox bokk ak moom réew mi ameel nga ko ñetti àq ki nga bokkal gox waaye bokk leen deret ameel nga ko benn àq ki nga bokkal deret bokk ak moom eh, réew mi te bokk leen gox ameel nga ko ñaari àq benn boo ci sànk nag dana la poñe ci kanamu yàlla ëllëg laaj la ko waaye bi may wax àqi dëkkaale ñett la boobu ci suñ bopp la jëm ñi tagg yonent bi maa ngi leen di nuyu ngeen baal ma nguuda du noonu hay nguuda ñu ngi lay nuyu bu baax xàmmee naa la ak sama mbokk waa Njaasaan yi tabaarkaal la ñoom saf na sàpp gis naa jigéen ñi def nañ lu ko dara jarul waaye nag ah noonu rek la waaw ak sëñ Saliou moo doon jàngkat yi waa kër maam borom Touba yi mbir mi daal li borom daara ji doon wax ala daawme na waaw ndax ñun ñoo bokk li ñu bokk tarixa yi dafa ñëw pour ràbb waaye ñëwul pour teqale te ñëpp mënuñu gëm benn mbir mënul nekk yàlla mi bind jaam ñi sax amu ko unanimité yàlla mi bind jaam ñi sax amu ko waaye moom ci coobareem la ko ñàkkee ndax moo wax ne walaw shaa allahu la hadakum ajmain wala yazaaluuna na yàlla ne su ma neexoon yéen ñépp ngeen jub duma leen bàyyi ngeen wuti ak man kon coobareem la keneen ku dut yàlla na du sa coobare ndax boo sañoon da ngay yëlif sa kër sax sa waa kër duñ déggoog yow wala déet wala léeg nga am doo doom joo xam ne boo nee waaw mu ne déet boo ne toogal mu taxaw boo nee bul dem mu ca mbedd ma te neexu la ndem ci sa biir kër ngay am lu la neexul te nooy def danga koy muñ as sumalaag nag rasulullahi moo li yàlla bind yëpp moo ci gëm gën te ñëpp gëmuñu ko léegi dama sëriñ Souleymane sàmb di wax benn naar bu nekk ca Maroc bu tubbi métier mooy xas yonent bi lu lu bon lu ne mu ngi ko koy yekk Rachid al al maghribi Rachid al maghribi lu ne mu ngi koy yekk rasulullah kon kon ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel unanimité kenn mënu ko am maay mooy ñëpp topp ci sa kaw loo wax ñu ne waaw kenn mënu ko am kon nii ngeen def rek nii la xaadir tiijaan murit layen ibaadu rahmaan falaax chiib ñun ñépp nañ nekk benn takk benn say nekk benn su ngeen ko mënoon sax su ngeen ko mënoon war naa yegg ba ci politique bi mhm. suñ ko mënoon laa wax war na mën a yegg ba ci politik ñàkk a bokk parti teewul mën a ànd seet luy defar réew mi ñu toog bokk def ko bu ñibbi jotee nag ku ne ñibbi ci partem waaye bu defar jotee ñun ñëpp nañ daje defar kon yal na leen yàlla fay ci ànd bi yal na ñu yàlla boole defal ngéneelu ànd waaye ñetti xaaj lañ ko xaaj àqi dëkkaale ñett la mooy bi nga dëkk ak sa bopp booboo jiitu ndax ku joxul sa bopp sa àq doo ko jox keneen wala koo ko jox rek fas nga yéene nax ko boo gisee joxante bi cër doxut parce que dañ joxan joxuñ suñ bopp cër ba pare moo tax yonent islaam ñetti xaaj la ko xaaj te yépp ci alxuraan la jóge bi ci jiitu ci benn baat ci alquran la ko yàlla tënk moo di wa fii anfusikum bu tubsiruuna jeex na foofu rek la nekk beneen bi mooy àqu dëkkaale bi nga xam ne yow la ak sa ndey ak sa baay ak ñi nga bokkal deret am na àq bu la war ci ñoom boobu yàllaa ko wax ci alquran waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan mu dem ba ca biir ne imma yabluganna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaxa zulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagiran boobu mooy deret beneen bi nag mooy li ñu bokk ñun ñëpp muy Sénégal bu ñu nee Sénégal nag cité sa sa saxaaba bii dugg na ci biir Pikine ak Géejawaay ak mboolem liñ tax ñu naan Sénégal dugg na ci biir boobu yàllaa ko wax ci alquran fu mu ko wax waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yonent bi wax ko ci xadis ne iza raaytum munkaran fal yugayyirhu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika adafu ci ñett yooyu laa koy tënk jox ko Seydul Xaaji Malik waaye gis nga ñett yooyu li muy li muy li muy xóot-xóot mu ngi tënku ci benn baat bu ñuy wax asalaamualeykum yóbbaale na yépp ana oustaz dem na mooy li mu wax léegi dafa am ko ñëw ci yonent bi salaay sallam ne ko lu bon lu yàlla tere rek maa ngi koy def te damaa bëgg dugg ci diine te bu ma duggee ci diine duma ko mën a baax yonent bi ne ko bàyyil ma wax lu du dëgg muy fen ni mu ko waxee noonu la waa ji dem ba bëgg naan dal ni ah bu ma naanee bu ma yonent bi waxee bu ma ne ko naanu ma musiba am di kon fen naa bàyyi sàngara lum dugg rek xalaat ne bu ko yonent bi laajee ñemewu ko wax lu dul dëgg mu ñëw ba ci yonent bi ne ko lu tax nga tere ma fen yonent bi ne ko bëgg nga bàyyi lu bon mu ne ko su ma yëgoon du la ko wax ndax ba ma telee fen rek laa bàyyi lépp lu bon kon fen mooy cosaanal lu bon lépp kadalika ni yonent bi sallallahu la wasallam waxee ne sàngara mooy ndeyu ñaawteef yi tabaarakallahu kon bi jiitu ñu jël ko ndax ñu bañ fee yàgg donte nag buñ ko développé woon niñ ko war a développé benn boobu rek mën nañ ci taxaw lu yàgg yàgg yàlla moo wax ci alquran ne wala tulqu bi ay aydikum ila tahlukati suñ borom nee na bu leen sopp seen loxo ci lu leen di alak xam nga maa moom sama bopp taxul bu la neexee nga jël paaka rey sa bopp ku ko def nu mu tudd xaru ku xaru dem safara kon moomoo sa bopp àddina bu metti bii billaay bu xaru daganoon bër bu set junni dee maa la ko wax bo bu doon ko xaru yàlla du la topp dara di nga gis ku julli ba sëlmal rek jël pistolet ne tuy boppam ndax àddina bi dafa metti waaye li ngay moom moom sa bopp tudd ne yaa moom sa bopp ndekete woo moomoo sa bopp boo moomoon sa bopp lu la neex def ci sa bopp te sañoo xaru ndax boo xaroo dem safara te boo xaroo sax tey ci loi àddina bi rek indil nga say mbokk yëpp problème ndax balaa ñu ne denc dañu ñu def enquête xool lu ko tax a xaru est-ce que poussé wuñ ko pour mu xaru est-ce que luñ ko wax est-ce que est-ce que est-ce que ba buñ jàppee sax ña nga xam ne ñoo la poussé pour nga xaru dañ leen di juger tëj leen kon moomoo sa bopp ñàkk moom bi nga ñàkk moom sa bopp nag moo tax yàlla ne nga toppatoo sa bopp ba bu lor sa bopp lor sa bopp bokk na ci mooy xaru bul xaru te bari na nag ci réew mi koo xam ne yaakaar na ne problème bi solution bi mooy rey boppam rek dem tey rek maa ngi seetaan journal xaw ma noonu la amee wala amul wal fajiri mhm. ñii ne nañ train ba daal rey na ko ñu ne daal dafa ñëw tëdd ci raay bi séen na saxaar bi di ñëw mu ñëw tëdd ci raay bi moom jàpp njàmburam train bi fekk ko fa daf ko daggate maa ko seetaan tey journal kenn wax man journal mooy sama dund gannaaw <laughs> bu ma nekkee ci ma nekk ba pare journal rek lay seetaan bu àddina bi yëpp nag naa ko seetaan ndax bëgg a xam lu xew ndax kuy wax ak ñépp danga war a xam lu xew waaye am na ko jël kàddu kàddu boobaa ma ci neex mu ne nañ def très attention parce que booy yi nekk fii ñi ci dañuy guinze te boo guinzee da nga yaakaar ne raay bi yaa ko moom wax na dëgg dootoo ànd ak sa xel gis nga kon li yàlla doon wax ñëw na bu leen dugal seen loxo ci lu leen di alak bokk na ca póon tux moo yées ci li yàlla bind góor gu koy def nanga ko ba dafa mel ni démb xadara bi liñ doon waxtaanee mooy temu tey bi pon ñii seen maam bind na ci Cheikh na Cheikh Saad bu bind na ci Cheikh na Cheikh bu bind na ci xasidaam ne ñaar a ngi nii buñ dajee woon kii lay sant mu jiite ma julli bu waxtu julli jotee ñu ne ko kan mu ne kii tux ak kii naan buñ dajee woon ci sama kanam mu ne kii naan bu màndiwut moom laay jiital mu jiit mu jul mu jiite ma julli wëlis kii tux tux moo gën a garaaw màndi toujours ma koy wax nag jigéen ñi nga xam ne seen borom kër yi dañuy tux walla boobu sax baaxut ku am far wuy tux far moom baaxul far baaxul de man duma koy bëgg sax di tudd far koo faral loolu lay firi koo faral far baaxul jëkkër a baax waaye far baaxul ah, balaa may dee nag ñu ne diw laay génnal fu ngeen jëm du ngeen dugg dugg kañ moo gën génn ah, eh, délégué de quartier nañ waxante dëgg rek ah, Njaay nañ waxante dëgg diw laay génnal fu ngeen jëm lekki galaas galaas kañ am na ci frigo bi jarul lekki kañ ngeen baal ma xaq dañuy waxtaanee penc rek ndax ñun ñëpp ñu mën a jëriñu damay wax toujours ne ku ci am borom kër buy tux wala far wuy tux balaa dee yow nga dee ba noppi ñu rob la ba pare te wallaay am naa ci benn exemple duma tudd turam robaguñ ko te maa ko war a jullee ku jigéen la billaahi wal te xam naa ne lu ko rey borom këram mooy tux dee na maa ko war a julli ndax koor bi ñëwagul te borom kër man la wax ma jullee ko te yàgg naa ko wax ne sa borom kër bu bàyyiwul tux yaay njëkk a dee billaahi wal kitaab yi te looloo am feebar bi to bi ko attaque ba yóbbu ko ci nicotine la jóge gis nga tux moo gën a dangereux ndax nicotine bi ngay dégager moo gën a garaaw yow miy tux maanaam kiy noyyi mos naa liir benn la mooy journal bu jógee woon États-Unis 1983 xam nga loolu yàgg na 83 mu ne États-Unis ci jamono booba ci jamono booba nee na vingt mille personnes daañu dee par an te nicotine nicotine moo leen di rey maanaam tuxuñu ñiy tux di sànni rek a leen rey ça c'est vrai léegi nag. àddina bi yëpp bokk nañ d'accord ne cigarette baaxul paquet bi sax léegi desin bañ ca dessin moom tuxkat yëpp war nañu tiit ndax boo gisee kañ ca def yow rek waroo tux yow bu dee Espagne boo tuxee ci public cent cinquante euros ngay fay bu dee France yaa ngi fay quatre-vingt-dix euro lu ko jar ci benn galanu cigarette dara jaru ko ah. ñu ne paa bi daal sibiru rek. ñu ne paa bi daal sibiru rek la ñuy wax ñiy tux beneen bi ñu baal ma duma ma ci du ci yàgg ci loro sa bopp laay wax parce que jeunesse bi fokk ñu dimbale leen te cigarette la ñuy foyee te benn mégo cigarette boo tux wàññi nga ko ci sa dund. ku waroon a dund cent ans di tux cinquante ans lay dund ku waroon a dund cinquante ans di tux vingt cinquante ans lay dund. te léegi constaté nañ ne Sénégal jigéen ñi dàq tux góor ñi ngeen baal ma xaq man nii lay waxtaane parce que dama bëgg lu ñu jëriñ li ñu def constat bi ñu constaté léegi dañ ne jigéen ñi xale yu jigéen ñi ñoo dàq tux góor ñi ngeen baal ma am na benn message buñ parce que man dañ foog ne lu ne mën naa ko faj ñu baree ñëw ci man lu comme sama gémmiñ gi daa rëy damay wax rek moom a tax a wow dama wax a wax a wax a wax ba wow yàlla xam na ko man doon na ma ko tuuti billaay wal kitaab bi li ma leen di wax du caaxaan sama baay ponkal la njool yegg ca kaw weex tal sama baay naar la sama yaay yéen ñëpp xam ngeen ne séeréer bu sant Juuf du tuuti moom xam ngeen ko loolu moom bu yeboo ngeen xam teel koo xam dem leen Sokone rek ngeen laajte Seynabou Diouf moo ma sut man est-ce que man gàtt na moo ma sut moo ma ëpp yaram macha allah génn na àddina waaw kon sama woowaay bi fu ma ko jëlee wax ju bari wax ju bari la rek parce que wax ton ton yi génn ci yow wax dafa am pois yi génn ci yow booy waxte doo lekk da ngay gën a wow rek moo ma yóbbu moo ma wowloo nii fokk ñu waxante dëgg moo tax nit ñi yaakaar nañ ne lu ne mën naa ko saafara waaye lu ma ci war a wax nag dinaa ko wax ak nam gën a rafete dafa am délégation benn délégation ay jigéen ñu tuddee leen diryanke fii ci senegal ñu ñëw seet si ma ñu ne daal dañ dégg sama benn waxtaan duma wax ban waxtaan la nag ci sëy laa doon waxtaan kañ ñu ñëw seet ma ñu ne ñun daal li ma wax yëpp dëgg la waaye am na benn secret bu nekk ci suuf boo xam ne naa leen ci dimbale mu ne am na kiligi diryanke yoo xam ne dañuy taal seen yi cuuraay di tux te kenn du ko xam lu ci charia wax ma ne ñàkk jëkkër rek a tax ngeen di taal di cuuraay di tëju ci biir néeg di tux bu ngeen amoon jëkkër ju leen occupé du ngeen ko tal da nga ko taalal cuuraay waaye doo tux kon nga xam ne méttitu tux yi laa bëgg a wax ne bari na waaye benn baaxu ci yàlla ne bu leen dugal seen loxo ci lu leen di alal kon sañuloo jëfandikoo loo xam ne daf lay yóbbee ñàkk wér-gi-yaram te ñàkk wér-gi-yaram boobu ci rey la la jëm kenn sañu ko moo tax bu lor sa bopp ma taxaw foofu bu lor sa bopp bokk na ca ñàkk lor sa bopp yonent bi sallallahu alayhi nee na bu lekk lu ëpp déglu bu baax li may wax salaay salaam nee sama xeet wi ki ci gën a gàtt fan lum gàtt gàtt fan war na dund 63 ans allahu akbar allahu allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah sallallahu alayhi wa sallam ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa xawla wala quwata illa billahi laa xawla wala quwata illa billahi laa xawla wala quwata illa billah laa xawla wala quwata illa billahi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu yuxyi wa yumiitu wa huwa ala kulli cheyin qadir allahuma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafia allahuma baashu maqaaman mahmuudan alladi waadta innaka laa tuxlifu almiaad yonent bi moo wax ne soo dégg su ngeen déggee ñuy nodd mu ne neel tekk lu mu wax nga wax ko bu yeggee ci sa xel nag bu yeggee ci xay ala salaa nga ne laa xawla wala quwata illa la bu continuer nga continuer bu daaneelee mu ne nga jàng ñaan gii mooy allahuma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafia allahuma abcashu maqaaman mahmuudan alladi waadta innaka laa tuxlifu almiaad nee na soo koy def ëllëg yowma alqiyaama man rasulullahi maay jàpp ci sa loxo beneen la àjjanaa ngi nii mooy sa kër jar na ko wala jaru ko lu tuuti lii rek nga am ci yónnent bi téye ci loxo ràmm la beneen la sa àjjanaa ngi nii jar na ko ndax kenn xamul li ngay defal yàlla bu ci nangu kenn xamu ko luñ dégg ne lu baax la rek loo dégg ne lu baax la rek sóob ca sa loxo boo liggéey bu yàlla nangoo benn yi ci des yëpp ñëw yàlla nañu ko yàlla defal moo tax mbokk yi kenn sañu la lor sa bopp dafa xaraam moo tax yonent bi salaay sallam wax ni du foofu laa toll woon mooy lan lu ma waxoon ba bi waa ji di nodd waaw kañ lekk mu ne lekk gu mu ne ku dund nañ def très attention yàllaay rey waaye ku dee moyen de 63 ans seetal lu la rey sa loxol bopp a ngi ci biir yonant bi moo wax ni sama xeet te wa maa yantiqu illa al eh, hawa wa maa yantiqu bi du wax ci bakkanam lu mu wax maa ko ko wax loo te moo ne samaw xeet ka ca gën a gàtt fan war na dund 63 ans mu ne lu ca tege ci nag bénéfice la waaye 63 ans mooy limite d'âge bu samaw xeet kon ku dee moyen de 63 ans am na lu la rey dëgg wala du dëgg moo tax yonent bi salaay salaam nee na loolu nag nañ ko vérifier te xam nga fu ko yàlla wax ci alxuraan ku la ko laaj xam nga fu ko yàlla wax ci alxuraan fal yanzuril insaanu ila taamihi inna sababna al maa sabban summa saqaqna al arda saqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa habban wa zeytunan wa naxlan wa xadaa'iqa xulban wa faakihatan wa abban mataan lakum wa li an'amikum yàlla ne li ngay lekk na ko xool ngeen baal ma ma def benn entre parenthèse dafa am benn xale bu daan xadaraa ci kër gi ñu koy wax Abdou Aziz Sène mu nga Italie léegi rakkam feebar fii négligence su ñu baal ma sage-femme nuyu na ma fi léegi négligence suñ docteur yi te loolu nañ ko nangu nañ ko nangu da ngay yóbbu nit urgence sax boo moytuwul mu dee ci say loxo dañ négliger trop ñu négliger ko ba tànk bi bëgg a yàqu mu yóbbu ko itali man fekk naa ko fa dëkk bu ñuy wax Lecce ñu hospitaliser ko fekk dama fa doon def conférence ñu ngi ko hospitalisé lonk tànk bi pendant deux mois lañ ko lonk te fii naroon na dem ba yàqu ñu faj ko ba léegi mu ngi doxee soxlam muy waxtaan ak xale bi ne ko ne am ngay rakk mu ne ko mu ne ko sama benn rakk bi dafa gaañu mu ne ko ñaata at docteur bee koy laaj de ñaata at la am gaañu mu ne ko sept ans mu ne porté leen plainte médecin bi ko doon faj parce que xale warta dee te mooy dëgg xale warul dee man maa leen ko wax xale warul dee non am na lu ko rey yaa de yaa cause xam nga lu tax xale balaa juddu war nañu faj ndeyam ba ëmb ba rafet Seydul Xaaji Malik bind na ci bind na ci bi am na xasida yum ci bind yoo xam ne bu jigéen ëmbee ordonnance la ko tuddee bii da koy naan bii mu takk ko bu juddoo xale bu du lafañ du lompoñ te ndeyam dana mucc ci jàmm te kenn du ko césarienne suñ mag ñi lu ne xam nañ ko demal Europe Europe day mel ni dee amu fa baal leen màq de ñiy tukki laa wax dem leen Europe day mel ni dee amu fa tubaab yi ñu ëpp fuuf ñun fii bër bu set dëj yi nga am yépp boo ko bëggee jaale ji ñu jaale la léegi yow da leb rek weer wi di nga ci leb fukki dëj weer ca topp nga lebaat yeneen fukki dëj jaale ji fukki yu njëkk yi yi ci des nga di ko xaar noonu nga koy lebee ba meñ lay rob yow doo mën a fay yëpp c'est pas normal Serigne Cheikh Tidiane si waxoon na ko rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ñu foog ne ay wax la dëgg la mu ne dee gu bari gii ci Sénégal nañ ko xoolaat yàlla teguñu ko ñoo ko teg suñu bopp. xam nga fu mu xam nga fu mu déparé ngeen baal ma li ñuy lekk xoolatuñ ko te yàlla ne na ngeen xool li ngeen di lekk ak li ngeen di naan. mbooleem feebar yépp ci ñaar rekk lay déparé amul ñett xam ngeen mooy ban ak ban lekk ak stress médecins yi war nañ ma nangul li may wax mboolem feebar yépp ci ñaar rekk lay déparé lekk ak stress soo muccee ci stress xool li ngay lekk mën nga gudd fan moo tax yàlla ne na nga xool li ngay lekk moo tax yonent bi ne nag kuy lekk na nga xaaj sa biir bi ñetti xaaj déglu leen bu baax li may wax mu ne benn wàll gi na nga ci def ñam beneen wàll gi na nga def ndox te bu bari mu ne beneen wàll gi nga bàyyi ko looy noyyee waaye di lekk bay appat tey de moom lekk naa bu baax a baax a baax def nga lu bon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari ñam bu mu daje ci sa biir déglu leen li may wax bu wax ne dëkkandoo laay wax bi ci jiitu mooy yow boo joxul sa bopp ak doo ko jox kenn yonent bi nee na ñaari ñam bu daje ci sa biir mu ne bàyyil ba benn bi rees nga door cee teg beneen ñu nag dangay añ balaa reer balaa rees nga reer balaa rees nga njogonalu balaa rees nga mbëstan am na bu ñuy wax mbëstan léegi xaw ma xam ngeen ko wala déet ah déedéet am na it boo xam ne jeunesse bee ko moom boolu dof boobu diggante ak diggante reer añ ak reer la nekk nooy wéree doo wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam buuru Éthiopie daf ko may ñetti cadeau boole ci benn médecin mu jël cadeau yi delloo ko médecin bi buuru Éthiopie bi ne yéen nag seen yonent bi dama foogoon ne nit la waaye dof la ñu ne ko lu tax mu ne moom cadeau yi mu jël bi mu delloo moo gën a am importance laajal leen ma ko lu tax mu delloo médecin bi parce que médecin bi war na ko soxla bu feebaree mu faj ko ñu wax ko yonent bi yonent bi ne ko ne leen ko ñun xeet lañ woo xam ne du ñu feebar kon ku feebar yaa ko teg sa bopp ñu ne yonent bi lu tax mu ne ndax ñaari ñam du daje ci suñu biir lu dul benn bi rees na su ko defee kon nañ ci bàyyi xel lekk gu bari baaxul baaxul dangay ngay lor sa bopp te doo ko yëg yonent bi delloo yëpp delloo médecin bi jël yi ci des ñu ne ko lu tax mu ne ñun xeet lañ wudut feebar ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñaari ñam du daje ci suñu biir ak ban du ñu dañ ci tuur ndox te fekk bëgg nañoo tuur ndox ñu ne ko ak ban mu ne duñ denc dem gannaaw kër te fekk bëgg nañoo dem gannaaw kër yooyu yëpp day tax a gàtt fan ñu ne ko ak ban mu ne duñ lekk lu tàng lu tàng day gàttaloo fan maanaam di tibb naan yonent ne bàyyi ko ba mën koo laal waaye di lekk di wiccax noonu sama mbokk saalum saalum yi di def bu dee ñeleng tabaarkàlla nga rattax ko rek lekk lu tàng baaxut même naan lu tàng gënut danga koy nuggal ba mu yem ci sa gémmiñ biñ laajee yonent bi mu ne ñamu waa safara la leer na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na soo bëggee gudd fan na nga dëkkoo di xeeñ xet gu neex bu lor sa bopp ci laa nekk de foo tollu del xeeñ xet gu neex yéen a ngi dégg waaw ah, kañ yonent bi neena boo fi bëggee yàgg loo gàtt-gàtt itte bés bi nang ci sangu benn yoon benn yoon benn yoon ci bés bi loo gàtt-gàtt itte nee na na nga sangu benn yoon ci bés bi waaye toog ñetti fan sanguwoo am na wallaay man xam ñii xam nañ li may am na sëy bu ma maye woon ñàkk sangoo ko tas billaahi wal jëkkër jaa daawul sangu xam nga man wallaahi sëy boobu ndaw si mayewaat naa ko àjjuma bële ca gannaaw wallaahi ñii ñëpp xam nañ ki ma mayewaat xam nañ ko damay bañ a tudd tur ndax média la fu ne lay dem te am na koo xam ne kenn du ko blessé nit kenn du ko blessé mais man lu ngeen lu ngeen dégg ma wax rek wax naa leen ne expérimenté naa ko ba xam ko door ko wax man ci maye sëy laa dëkk ñii ma dëkkal xam nañ ko néew na ajjuma buy ñëw ba romb te mayewuma ci sëy néew na néew na 93 ak léegi maye naa mille 2027 sëy asafala 1027 sëy maye naa ko kon li ma leen di wax xam naa ko toog ñetti fan sangoo oh. sëy boobu wallahi yàlla xam na ko ñàkk sangoo ko tas ndax ku jigéen ki dafa njëkk a ñëw seet si ma ne ma waxal ak diw ma ne ko lum la defati mu ne ma defuma dara yor na ma mu may jox dépense dëkkal na ma waaye du sangu wallaahi ma woo ko ma woo ko ma foog ne day wax ma woo leen ñoom ñaar parce que islam bëggul kii wax kii bañ a wax ma woo leen ñoom ñaar ñu toog ci sama saal ma ne ko waxaatal li nga waxoon mu ne ma diw a ngi nii de bëgg na ma mu ngi may teral maa ngi koy dimbale mu ngi may dimbale waaye wax ko muy sangu ma ne ko waaw yow diw lu tax doo sangu mu ne danaay sangu kañ saabu laa du sangoo wallaay ma ne ko lu tax doo sangoo saabu mu damay xëppoo ma ne ko lu tax doo sangoo saabu mu ne ñun de man dama bokk ci ñi gëm ne booy sangoo saabu doo am xaalis wallaahi ma ne ko yow amagoo ko ba tey di te jeune la kat jeune la ma ne ko yow ba léegi amagoo ko te sangoo woog saabu mu ne ah, ma ne ko bul dee de ma ne ko gis nga booy dee ñu sang la ak saabu ma ne ko léegi déem amatul de saabu la ñuy sangoe saabu kon ngaru saabu yii la ñuy sangee léegi kenn sangee tut xobi déem ma ne ko xëba déem lu tax ñu daan ko sangee néew parce que day setal boo ko sangee néew tabaarakallah yaram bi day set wecc mag ñi ñoo mag ñi ñoo bari xam-xam parce que boobu saabu bariwul moo tax ñu daan sangee xobi déem xobi dém boo ko sangoo woon yow mii te dara te deewoo defoo dara ña ragal rek la waaye boo sangoo woon xobi déem da ngay set wecc sa yaram bi du day day da ngay gis ni muy briller léegi nag comme diim yombatut saabu la ñuy sange ma ne ko bul dee de booy dee ñu sangee la ak saabu te man mii maa la war a sang dinaa la bomb ba nga set parce que maay seen kilifa ma ne ko yow yow ngay dund ne doo sangoog saabu ma ne ko néew bu war a dem ci bàmmeel seetlu leen li may wax néew bu war a dem ci bàmmeel nga xam ne suuf yeeg sax ñoo koy mujje buñ la dugalee ba noppi lu ñuy def jël suuf sotti te yàlla ne balaa ngeen ma ko dugalal ci bàmmeel nangeen ma ko sangal bem set tuural ma ko parfum laj ko lañ xoolal tuural ma ko laj ko bem xeeñ ngeen laxasal ma ko ci laytaay yu bees taq door ma ko jox man yàlla kon yàlla bëgg na ko set xam nga li gënoon a yenu maana mooy comme ci suuf la jëm nañ ko mboxom mboxomee rek dugal da gannaaw day tilimi rek mais kenn sañu ko ci ñun jullit bu génnoon àddina jullit ñi négliger ko ñoom ñëpp négliger ko kenn sangu ko kenn sangu ko kenn julleewu ko bàyyi ko noonu ñun ñëppay am bàkkaar waaye bu ko benn jullit defee wàcc na jullit ñëpp kon c'est tres important kër yaa ngi tas de man maa xam li ma lay wax day am nag ci góor ñi day am ci jigéen ñi day ci góor ñi day ci jigéen ñi jigéen ju ci topp toll ci am doom gën la fonk nag sa bopp xam nga lu tax nampal dafa liir bi day am xet te nampal meew dafa am xet soo dul toppatoo sa bopp léegi sa jëkkër di guddee àll fekk yaa ko waral rawati nag couche yi nga xam ne moo xew agete yi motoñ ko rek teg ci ruq bi muy gilli rek cuuraay boo mën a def du saafaraw man maa la ko wax wa fi anfusikum afala tubsiruna Haj Malick ngeen baal ma àq de man li may wax yéen ñëpp xam ngeen ko waaw mor moro moro couche rek danga ko ko teg fële yóbbul ci poubelle bi bul tayal bul tayal jigéen du tayal kon ma continuer jigéen du tayal de yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na jigéen nay xeeñ lu neex fu mu toll nay set fu mu toll nay sañse fu mu toll waaye li xew léegi nag ngeen baal ma xaq seetlu leen ko rek ku ci am doom yu xaw a parental yu xaw a màgg tuuti boo soloo mu ne la yaay fooy dem mooy en général tàmmuñu yaay sañse toog fi ñu xamee yaay daal bu sañsee rek am na fu mu jëm te warul nekk nag dinaa ko tudd benn maire bu baax ñu koy wax maire Fat njaay ñemewuma ko laajte ndax Sénégal koo gëj a gis danga koy ragala a laajte mu ngi dëkkoon Ndar Chérif Adramé bu mag ba moo ko doon denc dama ne woon këram Saint-Louis maire Fat Ndiaye boobu chérif yi yu Mauritanie yi dañuy fees ci kër gi del wanag wi nag ci eh, wanagu Sénégal yi ni muy mel rek boobu amul douche intérieur ci néegam néeg bi ma bi ma dëkkoon ak moom néegam nag ñoo jàkkaarloo su may julli ci fajar gi ba yor sama kurus mère Fane Ndiaye da ngay gis muy yoot génn muuru ndànk jël puudar bi puudaru puudaru puudaru puudaru puudaru mën a ci sama xel mère Fane Ndiaye mii fajar gii fu jëm wallaay ba bés mënuma ko muñ rek mu mu génn ñëw ma ne ko am ah, mère Fatou Ndiaye yow fajar gi looy puudaru foo jëm mu ne ay dara damaa sangu ji di ma ne ko sangu ji di puudaru mu ne bañ ñaaw rek ndekete moom balaay dem ci duus bi day makk yewu ba nga yaakaar ne day tukki ndekete day sangu ji mu ne ma damay bañ romb nit ñi ci ci biti ñu gis samay xaamit ñu ne Fatou Ndiaye dafa ñaaw xam nga loolu ci bàyyi xel sa bopp ci la bokk kon sa bopp sañoo ko lor nañuy toppatoo suñu bopp nañuy sol lu set di xeeñ lu neex ndax yàlla moo wax ci alquran ne xuzu zinatakum inda kulli masjidin teg ca nag wa kulu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin yàlla na dee leen taaru fu ngeen tollu dee leen lekk ba suur dee leen naan ba màndi te bu leen yàq ndax man yàlla bëgguma koy yàq ma yem ci foofu continuer mu des beneen deuxième point bi mooy dëkkaale ak ñaari way jur yuy dund ak ay freer yoo bokkal ndey ak baay wala ndey walla baay wala ñoo xam ne meen ngeen bokk wala geño yaatu na kër gi daal rëy na ñi fa nekk ñëpp kenn du ci jàmbur ñooñu ñëpp ameel nga leen àq soo leen ko joxul bés pénc yàlla dina la ko laaj yonent bi nee na salaay sallam àq ba ca jiitu mooy bu tislee nga ne ko yarhamukallah te xoola boobu la ñëpp di xeeb nee na ñi nga dëkkal ci kër gi àq bi gën a tuuti boo leen yoral salaay sallam nee na mooy bu tislee moom na wax alhamdulillah moom mi tisli yow mi ko dégg nga ne ko yarhamukallah yonent bi ne ko soo yonent bi nee na soo ko deful bés ci dina la poñe ci kanami yàlla ne fay ma sama àq te ma wax leen ci benn bàyyi sa tis li mu génn kowe day tax a gudd fan waaye léegi da nga gis kuy tubaab tubaab gaaw a dee rek ak tubaabee yeggu ci bàyyi ko mu génn tisli day tax bàyyi ko mu daara tis tisli day tax a gudd fan dañuy dimbalante rek waaye léeg-léeg nga gis kuy koy tubaab tubaab wallaay wallaay danga leen di yërëm sax da ngay xam ne ñii dañoo bëgg tubaabe tubaabe tubaabe ba fàtte sax lu leen di jëriñ te xam nga lu tax tisli di tax nit gudd fan moom la doomu aadama njëkk a def ci dundam maam aadama aleyhi salaatu wasalaam yàlla daf ko bind 40 ci atam ya moom yàlla inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudun yàlla nee na yéen su ngeen compté bi am 1000 man yàlla maa ngi door a am 24 heures yàlla bind maam aadama 40 teg ko yëngatuwul waxul deful mu xëy rek fa nafaxtu fiihi min ruuxi roox fii lay duggee ci digg bopp lay jaar buy dugg buy génn ci tànk lay jaar waaye nu mel la kenn xamut baaraamu baaraamu sànq lañ bu càmmoñ bi buy génn fa lay jaar moo tax en général tànk yi njëkk a sedd kuy dee tànk yee njëkk a sedd en général ndax foofu lañ koy noccee waaye fii lay duggee moo tax xaleel boo xoolee digg bopp bi moom lañuy wax nampatal dangay gis muy muy muy mun na foofu lay jaar yasalunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi wa maa utitum min al ilmi illa qalilan abdullah ibnu abbas ngi toog mu ne ana minhum yàlla dafa ne yonent bi nit ñaa ngi deñ kumpa di la laaj ana ruux fu ruux nekk ci nit waaye ñu la ko laajee ne ruux sama mbiri borom la kenn xamu ko ku dut yàlla ak ki soob yàlla Abdullah ibnu Abbas yëkkati loxoom ne man xam naa fi roox nekk Seydina Omar bàyyi ba guddi mu fekk ko néegam ne ko dimbali ma fu mu ne mu ne ko kon ma war yàlla waxuma ma wax la ko bari na koo xam ne bu ko xamoon tey mu senn Abdullah ibnu Abbas xam na fu roox nekk roox taxawut benn place day daw ci yaram bu taxawee rek borom dee mooy buy génn rek borom dee bi yàlla roofee maam aadama roox ba mu yegg ci ndigg li dafa ne bërët toog bi mu toogee dal di tis li loolu la doomu aadama njëkk a def ne nañ bërët toog bi sax yàllaa ko ne teeyal yàgg nga fi te yënguwoo ma roof la roox rek ngay bër bëri foo jëm mu toog moo tax nit lu muy njëkk a jàng toog nit toog lay njëkk a jàng bu juddoo après raam moo tax yàlla kenn mënu ko fay yéen jigéen ñi kenn mënu leen fay yàlla yéen la joxoñ wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan wa jaala lakum sam'a wal absaara wal afidata laallakum tashkurun yàlla ne maa leen génne ci seen biiri yi ngeen di lu tuuti manu leen a def manu wa jaala lakumu sam'a moo tax liir gis lay njëkk a def xool lay njëkk a def yàlla moom la njëkk a tudd wa jaala lakumu dégg kon astafurlah wa jaala lakumu sam'a moo tax liir dana dégg lu yàgg te du gis gis nga ba ci biiri yaay yi liir bi day dégg moo tax yonent bi salaay salaam daan wax ne boo ëmbee moytul ma yenn jotaay yi dinaa koy faral di wax nit ñi di ree te mooy dëgg xale yi pecc mu metti mii ñu nekkee jàngewuñ ko ci yi ci biir yaay lañ ko jàngee ah yow da ëmb toog ci télé bi di seetaan gars yi di wàngoo rek léeg-léeg sax nga sàggan bi xaw a bii xale bi buy judd mën a fecc parce que day dégg li muy nekk ci biir yaayam yépp dafay dégg yàllaa ko wax ne da ngay dégg boo paree gis boo paree dag di yëg ci sa xol